politique ngay ngay ngay proposer sénégalais yi. mun na foofu laa wax ni politique bi ñu am au Sénégal baaxul parce que dañoo jox trop de pouvoir au président de la République président de la République mën na lépp ci Sénégal. et il en veut encore. mais loolu moo baaxul dëkk boo koy tabax da ngay tabax système boo xamante ni tey bu la jaabul ñëwoon jël réew mi institution yi dina résister. mais yow système boobu ban système la selon yow. da ngay taxawal un régime parlementaire encadré. c'est-à-dire. da ngay taxawal di nga am le président de la république dañ koy continuer di ko élire au suffrage universel direct parce que loolu c'est un acquis majeur mais réalité pouvoir politique bi koy delloo assemblée nationale. doole delloo assemblée nationale delloo assemblée nationale mooy. nga fexe boo xamante ni majorité parlementaire bi ci boppam moom mooy gouverner ci du am benn jafe-jafe président de la république sera au-dessus nga fexe nga am un système boo xamante ni opposition bi wala une coalition mën na gouverner. ci boppam majorité nan ngay nekkee président ñu élire la au suffrage démocratique direct. après nga ne majorité présidentielle bi. xanaa yow kon doo bokk ci élection yi. sa parti du day am. ah France ñaata yoon lañu am. ay élections yoo xamante ni am na président de la République mais président de la République perdre. c'est c'est pas le président qui a impulsé c'est le feu du jeu. oui loolu mais loolu la mais bien sûr électoral. mais mais loolu il y a eu cohabitation ce sont les Français qui ont décidé. Ah, foofu laa aujourd'hui y a une majorité hyper relative c'est une décision émanant du peuple français. mais non non li may wax mooy te jii. système présidentialisme bi nga xamante ni moom la ñuy doxee Sénégal bu fekkoon opposition bi am na ci majorité ay jafe-jafe mën nañ ko am ci suñu institution yi nan lañ mën a dooleele assemblée nationale dooleele le premier ministre ca loolu yàqul dara ci pouvoir yi nga xam président de la république bi am na ko ba assemblée nationale doole bi mu war a am ci contrôle ak vote loi assemblée nationale boobu daal koy mën a am ñu dooleel am assemblée nationale régime parlementaire boobu lay bokkut ak régime parlementaire bi may wax comme par exemple Angleterre déedéet comme par exemple euh, euh, de Allemagne waxuma déedéet le président de la République mën nañ ko continuer di ko élire au suffrage universel ba pare ñu dugg ci régime boo xamante ni doole assemblée nationale da koy. mais dans les principes des textes de loi au Sénégal c'est ça euh, y a les principes énoncés euh, qui peuvent faire croire que le premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale l'Assemblée peut déposer une motion de censure euh, le président ne peut dissoudre l'Assemblée au qu'au bout de deux ans les principes sont là mais c'est dans la façon de matérialiser mais, ces mais, principes la ñu am mais mais mais soo xoolee Maïmouna le président de la République au Sénégal a trop de pouvoir te il n'est responsable de rien parce que même haute trahison bi ñuy wax kenn définiru ko haute trahison il peut être poursuivi il n'est responsable de rien en vérité le président de la République il est irresponsable il a trop de pouvoir il nomme à tous les postes civils et militaires président de la République moo jiire jiite conseil supérieur de la magistrature président de la République au Sénégal il est chef de parti il est chef de